démb bi ñu jàppee dañ fa gis loo xam ne ñun mësuñu ko gis xanaa suñuy bàyyi suñuy ndey ak suñuy maam yi fekkee ay années cinquante années soixante années soixante dix jamono xëy na parti unique wala multipartisme limité ak quatre courant waaye ñun ñii juddoo démb ak barki démb lu ñu gis ak lu ñu dund démb mësuñu ko dund ñu bëri nag dinañ jël parole. ku jël parole di ngeen foog ne kenn mënatul wax lu romb man dañ ma ci auto L200 man rek dugal auto L200 mu commissariat central jëm mu place de l'indépendance ma ne mais est-ce que jël sama ak sama parce que booy dugg commissariat dañ lay palpé ñu génnee ak lan caabi ak sama châle ak sama écharpe man ne leen maa fàttewu leen sama bagage parce que xaw ma sébi ko taan ngeen may yóbbu xaw ma fu ngeen may yóbbu mais mun leen bàyyi sama bagage foofu ñu taxaw ñu woote ñu ne am na benn oto bu koy indi noonu lañ ma jàppee L200 bi menotté ma les mains derrière le dos ñu jëm ba ci kanam ñu menotté ma ci kanam ñu dem ba ci kanam ñu dindi menottes ñu daw daw daw daw daw ba diggante jam ñaajo ak Thiès man foofu la ñu wàccee ci guddi bu lëndëm wàccee ma foofu bàyyi sama xaalis commissariat central maa ngi yore 23000 wàccee ma ci digg àll Thiès bi ak benn xaalis yoruma téléphone yoruma dara guddi bu lëndëm lu nekk mën mën ma fa dal. ñu egg ñu ne ma wàccal ma ne leen maa bañ foofu la ñu toog benn waxtu wàccal ma ne leen wàccu ma mu jaraloon ma nag lu nekk. defoon nañ ko daaw suñu benn manifestation guddi ci nawet bi muy taw yoruñu téléphone yoruñu xaalis ñu wàccee suñu ay camarades ñii EMG ñii euh, xawma VDN ñii Wakaam ñii Corniche waaye weesuwulu bërëb yooyu ñu ne déet. bi pas di ngeen dégg localité yi man nee naa leen digg àll Thiès bi lañ ma wàccee ëpp na kilomètres yoruma paas yoruma dara naka lay def ma bañ duma génn mais bi ma waxee ak policiers yi ba sonn ma xam ne ñii ñu commencé ma saraxu di pour ma la man c'est un ordre manifestement illégal un ordre manifestement illégal maanaam dogal boo dëppoowul ci alxuraan dëppoowul ci bible dëppoowul ci Torah maanaam dëppoowul ci yoon ci gàttal fonctionnaire même fonctionnaire de police am na sañ-sañ ne maa lànk defuma ko wuteeg defuma ko bu président Macky Sall ma ne leen naam président Macky Sall c'est un président voyou Antoine Diom ministre de l'intérieur c'est un ministre voyou waaye yéen mii tamit am ngeen si wàll. lii buñ ko seetaanee beneen yoon Fatick wala Tambacounda la ñuy sànni déedéet Benen Yon sax da ngeen di dégg disparaître totalement de la surface de la terre c'est extrêmement grave ça c'est de la torture torture mooy infliger une souffrance loolu mooy torture nous avons été torturés ku ci nekk dina expliquer man damaa am chance kenn dóoruma ñii nar a wax sama ginnaaw di ngeen xam ne lépp dëgg la man kenn dóoruma rafetluwu ma ko nag parce que man nee naa nañ ma traiter comme sénégalais yépp waaw tay bu doon démb ci benen auto bi laay nekk.